liggéey bi mooy développement local yu ñu bëgg si au niveau des quartiers développement local ak création d' emploi yu ñu bëgg au niveau des quartiers de Grand Yoff ñu def ko commencé ko man je en place 134 millions pour Grand Yoff je mets en place 134 millions pour les 66 67 quartiers de Grand Yoff uniquement pour la création d'emplois de mille femmes et de 1000 jeunes ça fait 2000 emplois ñu def je mets en place 20 millions de francs pour ñu ñu créer quatre formations quatre centres de formation quatre centres de formation céréales local au niveau de Grand Yoff je mettrai également en place xaalis bi teew na maa ngi ko téye du xaalisu parti politique du xaalisu du xaalisu réew mi du xaalisu per apayee rek ma sàmm ma dem lu ma yàlla wërsëgal la ma jël ko pour delloo ko Grand Yoff pour njukkal waa Grand Yoff si li ñu far président Macky je mets également en place un montant de 30 millions pour création bourse familiale communale ici à mu nekk un montant de 184 millions uniquement pour la création d' emploi de de 2000 emplois bourse familiale yi nekkul nag xaalis bu ñuy distribuer ma xam ma dem déedéet ça je le fais pour soutenir le président Macky Sall sur le plan Sénégal émergent